lu toll ci juróomi militant wu Pastef le tribunalu Thiès daal di condamné ñaari weeru prison lool nag ginnaaw bu ñu amalee manifestation 15 mars bi ñu jógee mu nekk ab verdict bi nga xamante ne neexut ñii di frappe France dégage Guy Marius Sagna jàppee ko ab injustice. li xew Tivaouane le tribunal de Thiès a rendu une décision politique attekat bi atte ñoom Alioune Badara Mboup Binta Samb ak ñeneen ñi joxewul atte attewul te yàlla tax. si yooyu les détenus bokk si magu kii di Ngouda Mboup moom enseignant chercheur bi di ko ñaawlu. kon amuñu honte pour Alioune Badara Mboup nous sommes fiers de lui et aussi je dis que tout simplement bu fekkee ne Alioune Badara Mboup ci loolu lañ koy tëjee wala dara man dinañ ma tëj parce que man je suis prêt à continuer son combat je lui ai promis sans rien céder. ñoom nag xam ne na ni que dinañ taxawal ab collectif buy dajale njabootu détenu dañoo bëgg a taxawal le collectif des familles des détenus politiques ngir FRAPP dootul waxati sax seen ci seen baat ñoom ñu waxal seen bopp ndaxte tëj bi métti na arrestation yi bëri na tëj du dëgg du yoon rey bi bëri na lu ëpp juróomi téeméeru détenu politique la ñu nemmeeku ci biir kaso yi bu sukkandikoo ci les activistes di joxoñ baaraamu tuuma njiitu réewu Sénégal président Macky Sall ñoom nag fas yéene wu ñu bàyyi benn yoon mu sedd ndax xamle ne nekk dinañ xeex li ni mel.